jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saasu ne tey nag ñu ngi fii ci salle de vente seet si fi xale bi nga xamante ne vraiment samedi dafa bëre ci journée Mouniang production wanewaat boppam ci làmb stadium Iba Mar yaakaar naa ne bi mooy ñaareelu combat bi yoo xamante ne vraiment combat bi dafay gaaw dafay wane boppam muy BMW ñu gis ci wàllu mobilisation li mu ci mel vraiment bu jugee tund bawul gépp dañuy jug ànd ak moom mu bëreeg si di jàmm gën am ndam mu waral ñu seet si ko tey bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi fas yéene wax ak moom gàllaa ji bari woon na sengoor yi bari woon na waaye bëri na daan xale yi dañoo am ngemb de ah am ba ah. xale yi dañoo am ngemb de ah, waaw ah, maa ngi ma sant yàlla julli ci bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant fa ma jóge waa Bawol rawatina ndereb ga ma dëkk saasaar maa ngi di sant ñëpp taxaw nañu ma di sant waa Saal waan gi nga xam ne fi laay xëy fi laay wàcc fi laay liggéeyee maa ngi sant ñëpp sama garaay nekk fi yëpp maa ngi di sant bu baax a baax taxaw nañu ma gunge ma ci lam ji yàlla may ma ndam jàpp nañu bu baax a maa ngi sant ñëpp ñëpp di sant suñu waa suñu waa écrit di ko di nuyu bi sama papa Bada Dione maa ngi bu baax a baax di nuyu Elimane Sarr ak Wilaas ak mbëree fa nekk yëpp Hmm. ak ba écrit bawal yëpp maa ngi nuyu ku ci mel ni Baye Bada Soum ñëpp écrit yëpp maa ngi nuyu bu baax a baax leen gërëm. Hmm. gis naa dañ ma taxaw bu baax. Hmm. waaw avant ngay jël euh, Sidi jàmm ci ban combat mujjee jógee stade Jom Iba Mar. waaw man ci Petit Baboy laa jógee coom laa mujj a bëreet le 24 novembre. 2000 lan. 2019. loolu yàgg na de. yàgg na kay mais xam nga rek affaire Covid bi rek moo taxoon. Mhm, micro bi waaw waaw affaire Covid bi moo taxoon rek. Mhm. bëree ñu mhm. waaw. mais boobu ñu ngi la doon démarché wala. yow yaa bëgguloon a bëree wala adversaire yi la doon daw wala lan. non ñu ngi ma doon ñu ñu ngi ma mais des fois mu ba ci yàgg mu yàquwaat. lu ko doon yàq. des fois ci mbër yi lay yàqoo de. waaw des fois itam ci yi lay yàqoo. lan moo la dugal ci Sidi Diamaguène. Sidi Diamaguène man de. si di jàmm gan bàyyi maan xel ci moom sax sama papa ba rajoon daal moo ñëw ne ma si di jàmm gan ngay bëreet ma ne ko d'accord. Hmm. waaw. ñu ngi koy jël xam nga ko. xam naa ko parce que seetaan naa ko seetaanaat naa ko. ban combat am nga seetaan. mu mujj bëreeg gaaroo gaar combat double moteur bi maa ngi stade. Hmm. seetaan naa ko waaw. muy bëreeg xeeru seetaan naa ko. Hmm. waaw. nga ñëw stade. mu wan ni la carrément bis bi dama ko bëgg. waaye da ngaa ànd ak waa Bawol rek mais xam naa ni moom combat bi liñ la ci fay. ni nga ci def ci mystique moo moom <laughs> xaalis moom si am yaakaar ba ne dese nga fa daal dese nga fa. <laughs> ah xamaguma ci dara daal moom xam xam instant bi moom xamaguma ci dara ndax réerikat bi génnagul. <laughs> Euh. waaw mais xam naa ne moom ñu ngi leen di ñaanal rek ñu jéglu bu baax a baax. yàlla kal koy daal Biraseen moo jiite ñëpp. ñu ngi jéglu bu baax a baax rek nga xam ne ay xale lañu billaahi. Mm. affaire yi moom des fois da ngay kii ba doo xam sax actuellement nu mu demee noonu. Mm. mais lu yow sax gars yi doon indi mystique yi xamoo fu ñu jógee. ñoom ñoo doon indi rek ñoom kay dañuy indi rek booy ñoom fils de BM soqandi fils mbër yi dañoo neex ñoom affaire yi nag papin ñëpp dañuy jigi rek man damay jigi rek ñu indi man a waa ji fu ñu jógee ak sama mag bi kooku lu ne la may jox man ne lii fu mu jógee hmm. xaw ma sax fu mu jógee bilaahi hmm. <laughs> waaw bi bëri woon na mais bëre bi dafa ñëw nga teg ko ci yoon mën nga maa wax nan nga bëre si di jàmm gën ba daan ko waa si di jàmm gën ni ma bëreek moom lépp sama papa rajon la hmm. moo ma conseil Hmm. bi may bi may waaj bi may waaj a ngemu la ñëw kër ga. Hmm. ne ma tey amoo droit def benn erreur. Hmm. da ngay wàcc say tànk nga dire ko topp ko te chaque jour gauche rek ngay xeexee sa droite bi mu jóg droite bi saa yu ñëwee uppercut lay doon wala nga bal ko mu génn. loolu rek laa bëre li ma bëree yëpp ba dajoon moo ma ko conseillé. waaw waaw léegi nga bare mu yegg la fu sori am na benn moment sax am na lu ma doon wax ci reportage bi. yaa ngi ko doon dégg. <laughs> dégg naa lépp. lan <laughs> jël la ko. Ah. ba nga ah, sama xel a ngi ñaaw sama xel ñaaw na. Abdoulaye sama xel ñaaw na. waaw parce que damaa xamoon ni caxabal sa foor la. pourtant bëggumaan koo caxabal sax moom moo def li tax ma caxabal ko. Hmm. parce que dama koo jàpp. mu jàpp taxaw ma jàpp. Hmm. ma dugal sama ñaar loxo féete biir ma rocc sama loxo droite. Hmm. jàpp génne ko jàppaat ko ñu ngem le. yaa ngi dégg. après mu taxaw defut dara. ma ne ko nii mu yaakaar dama koy caxabal sama tànk bi laa njëkk nii mu yaakaar dama koy caxabal rek ma dugal ko bi jéem koo songale. léegi tànk bi xam nga dañuy tooy instant boobu. après mu tax nag mu rëcc ma taxawaat. parce que boobu def naa foofu erreur sax. Mhm. parce que mënoon na maa jumloo foofu. Mhm. ma taxawaat déglu ko lu yàgg defut dara. mu xaw a arrière ma mel ni mu mel ni luy gën saako yi ma topp ci kawam rek mu tourné beneen côté bi. mu tourné mhm. beneen angle bi. ma wan loos bi ginnaaw. ma yokk sama tànk góos ci kanam dama ko yokk rek mu xool ko après mu ko xoole ci la may jéem a tegal sees nag. dama jéem a kàl nii quoi. Mm. ci kal boobu muy kal nag ci laa profité caxabal ko fekk mu mooy tuur te fekk na sama loxo droite bi dama koo téye ci ngem li mm. bu dëgër ci laa ci laa am appui mm. sarse ko mu jaaxaan mu jaaxaan waaw léegi nga daan si di jàmm gën fan nga jëm ci làmb non man moom wax dëgg naa si yàlla du laaj benn mbër ah ragal nga kon mbër mu ñëmewul laaj moom te sa xel am ci du mu nekk non ragal nga jiine ragal nga ragal nga non du ma laaj parce que sama papa ba da man ba muy bëre ba tey man bëri naa fekk nit sax gise ko ci stade ba barke alxuraan man duma ma ne tey ngay bëre kii du ma ci teg baat. lu ma mais ñaari combat yi nga bëre yëpp ay combat der la te génn nga ci xanaa bëgg nga ci ñeneen ñoo xamante ni. waaw nañ ma jox samay morom rek man samay morom la bëgg a bëre. say catégorie léegi say morom. waa ci ci ci ban catégorie. yaa ma gën a xam booy man mi yaa ma gën a xam booy tana mais xaw ma ñan nga ci war a mën a. waaw waxal man maay wax. waxal yow nga daan war a waxal balay waxal. waxal du xam nga booy waxal. gàlli la xam nga booy du wax. may mayel baabooy petit baabooy revanche. petit baabooy petit baabooy moom mooy ma ko wax daan ma ko lay. ah kon maa ngi tudd. waxal booy yi laa yi fi nekk wax ci. maa ngi <laughs> waxal booy yi ma tontu la bu ñu waree bëre ma ne la war nañu bëre booy yi nga ah. booy yi nga bëgg ma wax ko du ma ko wax samay morom xam nga leen nag jiile la ñoon sept combat laa def victoire macha allah hmm. yaa ngi dégg hmm. samay morom a ngi fii ci lam ji hmm. nañ ma jox samay morom man bëri mag benn mag nañ ma jox samay morom bëggoo mag ñi non non nañ ma jox samay morom booy yi fi nekk laa bëgg a bëreet booy kat boo leen limul kenn du ko xam waaye jiili nag yaa ma gën a xam. booy ko laaj Colifay 2. Colifay. non kii non non non non kilo Colifay du morom. Colifay 2 duñ ma ko joxee. non rek moom non du sa morom. barke alxuraan du sa morom du sa ah, morom. baax na du morom. Gamou Gueye du moromam. du moromam. ñooñu du sa morom. ñi ñuy lim ñëpp duñ say morom. gin bu yoof duñ sooy morom. kan ay gin bu yoof tafa mbëri ñii ñëpp. gin bu yoof tafa mbër. barke alxuraan akan ñooñu ñëpp barki sëñ Tuubaa ku ma jox def say morom laa lay def. billaahi. billaahi walaay. yaa ngi bébé julde baax na. bébé julde sama gannaaw la. doo bëri ak moom non non bébé julde sama gannaaw la. Hmm. non non waaw. bébé julde kii moo ko mujjee daan brise de mer numéro 2. brise de mer bëgg na bëgg nga bu dee moom bëgg na la da nga naan bu dee moom bëgg na ma. bu nangoo bëgg naa. bu nanguwul xam ma seeti leneen maa ko gën palmarès daa teg lay big ay defet lan ay ñaari ndam la jógee ñaari defet la teg la. ah mais xaw ma mais ci ñaari ndam. wala defet la teg la. Hmm? ñaari defet la teg la. ñaar ñaari defet la teg xaw ma ko de yaa ko xanam. waaw ah, man jàpp may defetam li may daa gëj na daan ba daan kii. Hmm. kii la mujj daan booy Temax ci lamb yi double moteur bi. Pépé Julde. waaw kon mu ngi ci lancé bu ba waaw su bëggee baax na su bëggut baax na. te nga ko ñaan rek. lu ma koy ñaan. ñaan sans man maa ko gën palmarès fuuf yow xam nga loolu ndeysaan billaahi maa lay jaajëfal bu baax parce que yaakaar naa ne sa làmb laa njëkk a ñëw Ibamar waaw waaw vraiment am lu ma ca waxoon sa diggante ak BMW euh, sa diggante ak Petit Baboy waaw waaw mu nekkoon boo xamante ne ci laay doog a ci stade bi reporté ci làmb ji dëgg la waaye daa mel ni fàtte woo lu ma ca waxoon non fàtte ma ko ba tey ah. la nga ca waxoon yëpp maa ngi ci jàpp lan laa ci waxoon bi nga naan ah. ah. yooyu dañ laa topp ba leen jëlee. man billaay xoolal man damay ñaan. Hmm. autorités yi ñu jàppale ma. yow mi barke alxuraan. ak li ngay indi yëpp. man ñi ñi may topp nii dëkk ba la ñu jógee ay élèves lañu xaaj bi. wóor na Serigne Touba dañuy dañuy dañuy bàyyi seen jàng ñëw dugg ci oto yi paas ñëw dëkk bi dem bëgg a dugaat ci oto yi ñibbiwaat. ndeysaan barke alxuraan man li ma bëgg rek mooy ñu may jëndali bi di ma leen dugal ci oto yi ñu dem ak a ñëw. kese kese laa bëgg loolu kese laa bëgg. ñu amee combat ñu may ma ay car. Mm. ñu jógee dëkk ba ñu may leen ay billets. ñu dem mm. stade seetaan ñibbiwaat loolu kese laa bëgg. kese billaahi. Mm. loolu rek laa man ki barke alxuraanu karim. dina ñëw incha allah am na benn euh, instant ñu ngi may laaj mais dama mujj sama xol dafa fees sax ma jooy manuma àgg sax image barke alxuraan. Mm-hmm. man loolu rek moo ma tuuse parce que boo booy dañoo son ci man. Mm-hmm. lu ne la ñuy daj barke alxuraan ñii lu ñuy yor seen poos du ma ko soxlaa du fanaan ci ñoom. ñoom ñi ngay gis ñëpp. Mm-hmm. samay booy lañu ak mm-hmm. waa Sall de wan ñëpp maa ngi di sant bu baax leen gërëm. Mm-hmm. ñu ngi may ñaax ñu may taxaw bu baax a baax di jiital ci nuyu bi sama papa Maysa Sarr ak Abdou Ndour di nuyu ñëpp waa Sall de grand su lay toob xam nga bu baax a baax mhm. njéen mais xam ngeen ko mhm. ñoom ñëpp maa leen di bu baax leen waa Saal Diwane gépp di leen masawu coono nag parce que gis nga nii état lii métti na torop mhm. parce que lii métti na ay chien ñoo fi nekk leen bu baax a baax a baax parce que lii dafa métti seen alal moo nem ci biir dara génnul fii gis nga fii ni mu mel fii dara génnul di sant Aliou mii na ci combat bu baax Aliou bu am sa bi nekk place am bi billaahi jàpp na si combat bi. Hmm. mais lii dafa métti maa ngi ñaan état bi daal. ma si Macky Sall mu geestu leen. mu jàpp leen bu baax a baax a baax. Hmm. parce que lii wër na Serigne Touba. Hmm. ñoom ñëpp ay borom ay borom yu njaboot lañu. te lii dafa métti nga yor sa place xëy mu tàkk ba jeex nii. te amoo ci leen billaahi. di leen ñaanal rek yàlla na yóbbu seen ay rek. barke Serigne Touba jërëjëf am na solo bu baax a baax a baax ñuy massawu képp koo xamante ni di tiis bi wala métit bi dafa dal sa kaw muy muy lakk bi nga xamante ne xew na fii ci salle de vente ñuy ñaan rek képp koo xamante ni mën nañ ci taxaw ñu gën ci taxawaat parce que ay doomi réew mi lañ vraiment nekk ci réew mi di góorgóorlu di liggéey saa su ne boo fi ñëwee da ngay gis ay jàmbaar rek ñoo fi nekk di bay seen waar ñu ngi ñaan yàlla na muy am sutura yàlla na leen yàlla suturaal ma lay jaajëfal baax di la di la jaajëfalaat. waa di ñaanalaat rek. Mhm. ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw. Mhm. ku ci mel ni bébé Diène. ndeysaan ñu ngi koy ñaanal. Mhm. ñu ngi koy ñaanal di ñaan waa Axlu Lam. ñu jàppale ko bu baax a baax yàlla dimbali ko. mu nekkaat ci biti. yàlla rek moo dul jom nit matul. dëgg la di nga def loo xamante sax doo xam lu ko tax a def loolu. ñun fi mu toll amuñu leen lu dul waa ñaan. di ñaanal bébé di ñaanal Kaw Cissé ak képp ku fa nekk. ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu may la liberté. barke Sëñ Tuubaa. métti Bébé suñu waay la woon da doon jàpp ci suñuy contact ak lépp. ñu ngi koy ñaanal yàlla génne ko ci lii mu nekk ci barki Seydina Mohamed. ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di nuyu suñu waa hmm. hmm. ba ci suuf ba lu ma hmm. a a dëkk waa Ndereb. rawatina sama booy giri dafa bàyyi ay soxnaam fu ne lay ànd ak ngi koy sant bu baax di ko gërëm Lamine Tamba Tafa Faye a ma seen fay ak booyu ndaw yi nga xam ne dëkk ba lañu jógee barke alxuraan du ma limbee rek du ma limbee kii mën naa ma bañ a lum kee mm. juum te kon du demee noonu dëgg ñu gis seen bopp mm. mais maa ngi di sant bu baax di gërëm di sant sama jabaru mag yi mm. kumba ak may ak xale yi ne kër gi yëpp ak koñ ba di sant sama papa di sant sama papa bu baax a baax. Mm. di sant sama yaay. di mm. sant sama yaay ak sama papa son nañ ci man. billaahi mm. du ma amee combat ni du ma demee dëkk ba. lu ma teel a teel a ak lu ma naaja naaja ñëw su ma ñëwee dinaa fekk sama lekk foofu lu mu am. billaahi day yëkkati du may dem sax Dakar ni sax day yëkkati lekk sax di ma ko jox ma koy dugal ci saak bi. man li ma bëgg rek mooy ma ñaan yàlla ñu bàyyi li ma fi ba ba ñu fekkee sama njëriñ. Uh-huh. loolu rek laay ñaan barke Sëñ Tuubaa Mbàkke. am na solo maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag. di sant waa Bawol gépp ma kenn. Hmm. ndarab yépp maa andi sant. Hmm. saasaar njogoon mbaje lulub njee ndong sañ nduunduur baye ak fan yow. <laughs> ndong yëpp lambaay bàyyiwuma fenn yaa ngi nguguus kaba reefan ngomeen ndadeel bàyyiwuma fenn ndàngal ma wa ndàngal ma ñëpp. Hmm. waa gaat maa ngi leen di sant bu baax leen gërëm waa guy kuli sëñ Mbàkke Sylla sama sëriñ sama bàyyi sama xarit maa ngi mm. koy sant bu baax di ko gërëm mm. jantal maara am na nu mu fa demee woon nag mm. comment bi mu taxawee am na rumeur bu ci jotoon am mais ngaa dalal sama xel ne yaa fi nekk yaay wëram ci la maa ngi lay sant bu baax di la gërëm sëñ xaadim si la sëñ xaadim si la aw ma maa ngi lay sant bu baax di la gërëm jàpp nga ci combat bu baax yow itam du ma ñëwee sa kër da nga may jàppee comme sa doom jëkkati ay benn di ma ko jox te doo ma laaj dërëm sëñ xaadim si la maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di gërëm wàcc la gépp Mm. waa ci la maa leen di bu baax di leen gërëm mm. di wax ne seen doom laa seen seen seen laa mm. maa ngi sak sàkku ñaan sàkk suur ci yéen di sant ñëpp bàyyiwuma kenn am na solo bàyyi laat fu mu toll ci téléphone bi bàyyi laat fu mu toll ci téléphone bi bàyyi laat waxagu dara maa ngi sant sama waa ji nag li jëntil téléphone bi góoramee ah. laat li jëntil téléphone bi bàyyi laat iPhone laa bëgg bàyyi laat sama téléphone bi daa yàqu daa daanu bi may bi may la ko benn booy sama fils de bam yor bu ah, daanu toj tuur bi fi mu toll lii laa yor lii lii lii du laat mbëru askan bi lii. lii lii nag lii laa yor fi mu toll. lii écran bi daa tudd barki alxuraan lii du sonné fi mu toll man sax bu sonné yàq émission bi laa la wax nga la. <laughs> maa ngi koy jaajëfal waxal ci iPhone bi. <laughs> maam góor Samb jàpp na ci combat bi. Mm-hmm. Assane Ndeye Sarr. Mm-hmm. maa jàpp na ci combat bi maa sant bu di ci gërëm Baye Ousmane Ndogo. Mm-hmm. jàpp na ci combat bi. damay woo nekk fi mais tout le temps damay woo naa ma defal nii defal nii di ma conseil mhm. di sant ñu jàpp ci combat bi yëpp du ma limbee damay juum mhm. ñëpp bàyyuma kenn ñëpp yaa ngi gërëm ñëpp man feres di sant waa kër yaa mbeet gi salliwan fii ci ginnaaw mhm. ay xale la yor foofu mais da leen a bàyyi ñëw ñu bàyyi seen liggéey ñëpp suur boobu dañu war na liggéey samedi la xam nga hmm. dañu war na liggéey mais daa bay dañoo leneen a bay ñu ñëw ci lam ji bañ a liggéey barke alxuraan di sant sama supporters yi jigéen yëpp hmm. gis nga keroog ni ñu def stade bi doo ma ci may kenn ma takk loo bëgg ñëwal amul am nga ba pare nag amaguma dara di jiital ci nuyu bi ñëpp ah. di sant waa Sall di wan ñëpp ñëpp hmm. di sant Fatou Mare mi nag Fatou Lo yi ñëpp jàpp nañ si combat bi waaw yaa ngi dégg di sant suñu waa kër may su Ndaw Khady Diouf ak waa kër ga yëpp man du ma fay fóot du ma fay añ kër gi. macha allah macha allah dañu may fóotal may sol. Mm, di ma jox may lekk. macha allah di sant Cheikh Fall borom kër gi. Mm. otoom la ma jox. Mm. ci combat bi yëkkati xaalis bëri maay ma ne ma demaam. di sant Baye Galaay di sant waa kër ga. di sant ministre yi ministre yi nekk foofu. jàpp nañ ci combat bi ak mécanicien yi. di sant ñëpp di sant sama gars yi nekk fii ñoom sox ak Jalaaw jàpp nañ ci combat bi di sant ñëpp. di sant waa Gaawaan waa Gab. Baye Tafaloo Gaawaan. maa lay sant baax la gërëm Fall yëmbal Fall ajuma ci guddi laa fa dem mu wax mm. ma lu leer nañ faal faal yàlla na la yàlla fay yàlla na la fa yàlla bàyyi ba nga mm. fekkee sama njëriñ mm. faal maa ngi lay sant bu baax di la gërëm li ma waxoon yëpp gis naa ko di sant Ablaye Ndiaye Darago di sant euh, sëñ euh, Fallou Niang parcelle maa ngi lay sant bu baax di la gërëm Baye Abdou Guèye Medina jàpp na ci combat bi wax na ma lu leer nañ moom itam maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm combat bi ci jàpp moom daa bëri mënumaa lim ñëpp barke alxuraan ku lim da dul matal sax waa kër Ibra Yaasin maa leen di sant bu baax. dem kañ kañ ngay tàggatoo kañ. kañ ngay tàggatoo. Baye Fall xam nga Baye Fall ak moom. mooy ki doon indi ram daan. waaw te mu nekk parcelle. Mhm. mi am sa fay baay Fall yàlla borom njuur borom njuur bi. ñëw na njuur bi ñëwul de. njur bi ñëwut mais lu gën a njur bi ñëwut ci lam de yàlla mi am sa fay yalla <laughs> na la fay mhm. Baye Fall Baye Fall damay ñaanal te du ma du ma koy jox xaalis mu delloo ma ko may ma xaalis barke alxuraanu karim ba ma fa demee keroog damaa yëkkati xaalis di jox. Hmm. mu ne ma yow jox ma cent franc cent dama ko yëkkati xaalis di jox mu ne ma déedéet indi cent franc te dem. ñu dajawaat fii mu taxaw oto ma taxaw ma koy nuyu mu yëkkati xaalis may ma. xam nga nga bëgg buur. buur bëgg laa di la ñaanal di la bokkal. noonu la noonu la bàyyi seen bàkke maa ngi moomu yaande bu baax ak fara hmm. Hmm. fara maa ngi lay sant fara ba may ngemul leer nañ la ma wax barki Seydina Mohamed waa ji bu taxawoon rek ma dóor ko mu daanu Hmm. billaahi wallaahi yow itam sant laa la jox. Hmm. du ma limee rek du ma fi jógee. am na solo ñu leen di jaajëfal bu baax mbokk yi ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf. tudd sëñ bi. Cheikh Mbengue laa tudd. seen seetkat la. non non du ma seetkat. lu tax nga ni da ngaa la lu tax nga gént làmb teer la supporteru waa Bawal. bépp hmm. mbër bu dëkk Bawal di bëree. maa ngi sa ginnaaw. Tapha Tine te ba muy bëree Mbapat. Enda 2097. Hmm. te ña ko doon topp ca laa bokk. Hmm. Enda yii ak hmm. Malick si Tapha Tine xam na ma bu baax saabu bu daanee dina ñëw fii si man. waaw mu doon sama gaayan bàyyiwu dara ci kóllëre gi kii di suñ mbër di suñ moroom mu nekk booy bu baax bu yaru même bu amoon tey combat tey tey tey nga song ko bëree bu bëreeg yow fële lay commencé du nuyoo ba. micro bi hmm. ñëpp tout amul ku hmm. nga xam ne loolu nit rek ko man hmm. du la daw du la def dërëm. barke Serigne Touba ñun ñëpp lay ñëw di bëreek ñun damaa gént fan yee rek bi combat bi des ay fan. mu toog ci oto nii ma ne ko mbër. te combat bi gis naa ko biig de barke Alxuraan bu dul dëgg yàlla mu dugg àjjana. dëgg la mu ne tëll ma ne ko andi cent franc daa yëkkati cent franc jox ma. te mën na nekk di séance yooyu yëpp mais cent franc mu yëkkati cent franc yi jox mu yëkkati cent franc yi jox ma. cent franc moo nekkoon weexal. ma ko di nga daan ci kàttanu yàlla. oto bu weex laa toog L200 bu weex bee ñuy toog ci lan toog ñun mu toog ci kaw. daan ba pare toog ci kaw ñëpp di ko wiir mu toog ci kaw oto bi. Hmm. billaahi bi mu ñëwee ci oto bi. ci sees la toog nii sees <laughs> bee ndam li billaahi ñun daa doon koy ñaanal jàmm rek. am na mu yàgg fi te wér doon champion nag. kilifa gi noo leex lay fala waaw ah. ah. ayca ah. sëñ bi maa lay nuyu baax. ñu lay ziar. micro bi tur bi. Abdou Abdou Sarr. Abdou Sarr waaw ñu gën koo xam ci Abdou Ndour. ndeysaan Abdou Ndour. waaw nekk Salde hmm. nekk fekk BM di doon sama rek. Hmm. doon sama doomu nijaay. Hmm. boo amee bés nag maanaam bés bi dañ ci son top trop mais jaral nañu ko. parce que wax dëgg si yàlla moom da di xele bu neex a gunge. am na fit am na yar. mën na bés. te du ragal. Hmm. moom li ñuy ñaan yàlla sunu borom autorité bawal yi. Hmm. ak promoteurs yi nga xamante ñoo nekk bawal. Hmm. di jàppale ñi nga xamante ne ay ay mbër lañ te nekk fii dakaar ñu ñëw jàppale booy bi muy BM. utal ko ay combat ni Fallou Faye ñoo ngi la ciy woo. ak euh, Assane Ndiaye. ñoom Gaston Mbengue ñoom ñëpp ñu leen di woo. ku ñu ñëw jàppale sunu mbër. bu fi maanaam ñoom Modou Lo roi des arènes nag Balla Gaye fi ñu yegg. lañu bëgg mu yegg fa. Mm-hmm. parce que am na nañu ci yaakaar. parce que wane na ko. Mm-hmm. parce que maanaam même bu du Dakar fii dafa toj Bawol door a ñëw Dakar. Mm-hmm. li mu bëree Bawol sax ñun mënuñu ko compter. dëgg la waaw kon nag na nanu boole ñun ñëpp jàppale ko. yàlla sunu borom defal ko jàmm. am na solo ndam yi gën di continuer. di gërëm nag ay magam. ki ñuy wax Bamba Sarr. sonn na ci combat bi trop. ku ñàkk ki ñaan la. na gën a jàpp rek fi mu jàpp foofu la dina baax parce que maanaam waajuram bu góor yi nekk bawal hmm. liggéey na ko fa hmm. na jàpp rek incha allah dina baax incha allah jërëjëf jërëjëf waaw di santaat rek benn nit nga ma wax daa am ku ma fàtte waaw nit nga wax sama rak la waaw mais benn nit nga wax waaw waaw léegi bàyyi naa la santal benn waaw ay sant lay sant laa waaw <laughs> Xadi Saar sama rak la hmm. mais yéen yéen ñi topp ci ginnaawam ñëpp maa ngi di sant baax leen gërëm damay bañ kenn ak Kumba Saar sama hmm. maa ngi sant ñëpp suñu waa kër ñëpp maa ngi di sant baax leen gërëm Saar Assane Saar jàpp na ci combat bi mu ne combat bi suba la yëkkati xaalis bëri may ma ci laa hmm. dem marché jàpp na ci combat bu baax a baax a baax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama ñaari dëkk boox sama dëkku yaay ak caacaw sama dëkku yaay Mm. maa di sant bu baax leen gërëm di sant waa Ndar ak waa Saasar gi ma dëkk mm. wax ne seen doom seen xarit seen rak maa ngi tàllal seen samay loxo chaque di sàkku ñaan ci yéen mm. lu ngeen ma ñaanal rek doyut jaajëf di ñaan yi ñu ñëw dinañ ñëw di ñëw bu baax a baax dinañ waaw kon ñoo ñoo ñu nuyu turu ci turu waa Salle Diawanté gépp rawatina fi mu toog dafa ñëw ci maamam ndax kii kii maama ma mbay ak Abdou Ndour mii ñoom ñii ñoo bokk seeni maam ñun ñu door a bokk ñoom bawal maanaam mu débuté ci ñun ci làmb fekk ñu fekk fi ay magi ay magi mbërëm kii bu nu amut ci moom yaakaar du am ci kenn yaakaar kii su bëree war naa daan ndax déglu nañu ci lañu ci xam akës néew te xeebuñu su ma ko fekkee néewut ci état bu ma neexee wax ko ne ko demal wuti état looy xaar yow loo bëgg mu ne man doole laa bëgg ma ne ko demal nga wuti doole bul bëgg xaalis kon doole joojee ñu ko doon loo moo ko may ndam tey te maanaam waxuñu la kontaagu ikiréem waaye kontaagam fii ci télé bi dong su ko bari jee doy nanu waaw am na ñu ñemeew ñëw ñoo xam ne saay bu xëyee am na fi fukki combat waaw dina dóor Sidi ngoom yenu xaadim galgal seextaay xoj ko ñëw mbëkk fii mbëkk kee mbëkk kii day mbëkk ba Sandaga. loolu rek doy na entraînement loolu rek doy na entraînement <laughs> macha allah. loolu de. maanaam nag li nu ci naqari. Hmm. mooy maanaam li nu daan ñëwee ñun. Hmm. dañoo fekk ci déception boo xam ne ndogalu suñu borom la. waaye man mii maa yore association baay Fall ko fi taxaw. Hmm. man mii maay maay këblu bi bi nga xam ne. maay jug. te saa yi jugee ñëpp jug ñu boole leen am jox ko. kenn du xam lu kii joxe kenn du xam lu joxe dañuy dajale lanu am mm-hmm. ñëw ne Abdou mun a mën a ko am defal ñu ko ci taal mm-hmm. Abdou bi mu ne bërit ñëw laa ko ne ñun de am na lu naqari mm-hmm. waaye na taala daan ah. na bee mu daan bee mu daal na daan ndaxte dama ne bés bii tey maanaam dañuy ñaan bés bu muy ñëwaat yàlla na doon combat roi des arènes ñii di bëre roi des arènes nañ ko jël buñ ko jëlee ñun ñooy bëre moom day dem géew ba ndax dinañ ci def suñu alal dinañ ci def suñu jom dinañ ci def suñu ngor dinañ ci def suñu baatin am na solo jaajëf jërë ngeen jëf kon nag yàlla na ndam li yokk hmm. waaye mais nag armée war naa ñëw ñu ñam ko allah ñoo ko man sax dañ koy faxas jaajëf am na solo ko armée mu ñam ko jaajëf waaw waaw wala nga jox ko kolifay deux mu sëlmoo ko ndeysaan da koy dóor mu daanu kolifay ragal ndeysaan jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf mbokk jaajëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la gars yi wax ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen champion jërë ngeen jëf